bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayamin wa ala xayri xadimihi di lxabli almatin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokk julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhaanahu wa taala julli ci mustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal ashaykhul xadim noo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nu tàbbi di chahru dil xijja bokk ci al ashhurul xurum di yenti weer yi ñu wormaal lool lu jiitu lislaam ak bi lislaam ñëwee nag fukki bis yi nu toll nga xam ne yendu saa salaam nee na fukki bis yi mooy yi gën ci mboolem bisi àdduna yi lii tegtale tedd nga am bokk na ci giñ gi ci sun borom giñ te yàlla lépp lu muy giñ rek dafay tegtale màggaay lola loola wal fajr wala yaalin ashir la yaalin ashir mooy fukki guddi yi njëkk ci weeru tabaski kon bis la yu tedd yu mat dundal yu mat a gën a góorgóorlu te sallallahu alayhi wa sallam newoon na lépp lu waay lépp looy defal yàlla ci lu maanaam lépp lu nit kiy jëf ci lu baax def ko ci bisi moo gënal yàlla def ko ci yenn bis jaamu yàlla gu doon lu baax lu mën a doon rek yéen saa nee na def ko ci fukki bis moo gënal yàlla def ko ci yeneen bis kon la takkal tegtal mooy kon bis la yu màgg yu mat dundal ci ay jaamu yàlla mat dundal ci lépp lu baax lu baax loo ci daan def nga yokk ko gën koo fonk waaye mu am luñ ci bàyyil xel loo xam ne yoon saa sa moo ko waxoon mooy saabu weeru tabaski teroo képp koo xam ne nar ngaa tabaski bul lawi koote wala ngay watu taagoo ci bis bu beneen di ba noppi weer bi ba xasee teru rek bu ne weer bi feeñ na sañatoo laal sa kawar maanaam watu wala ngay leewi say we lu may da nga àgg ci bisu tabaski bu ba ba noppi door mën a watu wala nga lewi ko doon ñu koy bàyyiloo xel bu baax baax bis bi ci kanam nag di bisu iid iid baat bi mi ngi jóge ci e, maana luy tekk mooy luy ñëw di desiwaat kullu ma yuaadu wa tukarrar luy ñëw di ñëwaat ñu di ko baamoo ko baam waat di ko def di ko defaat at mu nekk loolu moo tudd moo moo dañ ko tuddee ndax delsi gi muy delsi at mu nekk di ànd ak mu bees jullit nag ñaari ñaari ñaari iid la am muy iidul fitre ak iidul adha muy kori ak tabaski tabaski la ñu dëgmal ñu yoonal ko ngir sant yàlla tooka taala ak wuute gi yéefar yi ak musrikoona yi ci seeni feet ñoom ndax xadis bi anas net li wax ne bi yoon saa sañ jógee jógee màkk ñëw madina amoon na ñaari bis yuñ daa fo euh, mooy leen bis yi mu doon ñu ko kunna nalabu fihima fil jahiliyati bis la daa fo di ko feetoo ca jamonoy ceddo ga yéen saas lam neleen inna allaha xad abdalakum bihima xayran minhuma yowmal adha wa yowmal fitra yàlla wotel ne la ko yeneen ñaari bis yu ko gën muy bisub kori ak bisu tabaski mu nekk itam sunna soo xam ne mi ngi cosaanoo ci jaami yàlla yu mu gërëm yum joxoon ndigal lu waaye ñu jëfe ndigal sun borom la sun borom musal leen ca la la ca mënoon a juddoo ci li ñuy gis ci saahir waaye jëfe giñ jëfe ndigal yàlla tax sun borom faye leen euh, euh, faye leen lam leen faye waaye sunnaal ko nag ci xeetu yén saasam tey nag ba àdduna sooso ba léegi xeet wi képp la ko yàlla mësa sunnaal mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ko sun borom sunnaal ci Seydina Ibrahima ak Seydina Ismail ni ñaari yonentam di bàyyi doom mu doon ko rendeel la doomam loolu ko ne xam la te waxtaan ne koy yoon moo tax du jar ñu ci ñu ci ñu ci sori ci la eh, ba ko sunu borom nag wootee nag am xar mu rendi ko ci la sunnaal nag ci xeet wi saa bis bi desee ñu rendi am xar ngir dundal sunna sose waaye fàttali ko ci wàllu histoire ba ca xewoon la ca xewoon ngir mën caa jànge ndax bind yu baree baree bari bari moo ci nekk jàngale woon nañ ko ci at weesu muy bind yi ci mën a te muy bind yu bari muy bis wax ni itam euh, sopp nañ ca yu bari sopp nañ ca waa taay muy taaru ca sopp nañ sangu ca wala ngaa julli ji julli gi it sopp nañ itam boo xëyee nga bañ a mos dara mooy nga jàpp ba julli ji it ba ñëw la ngay njëkk a mos ca bis ba bokk ca tabaski ma loolu sunna la eh, ni noonu julli kan yet gi ci boppam muy ñaari rakka yuy julli di ko ànd ak imaam mbooloo mi di ko def ci ab bayal wala bara buñ ko jagleel fu mel na Tuubaa nga xam am na bara buñ ko jagleel waaye baaxuñ di ko def ci biir juma lu may daruura da ko waral ni noonu bu dee jigéen ñi أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد يهل السلام gàttaay yooyu ci góor lañ ko sopp waaye bu dee bu dee jigéen moom soppuñ ko ci moom bañ gaa def moo moo gën mooy bañ a taarlu ndax dañoo wax ne julli eh, ayit sunna la ci képp ku ajuma war ku ajuma war sunna la ci moom ku ajuma waru dañ ko sopp ci moom te jigéen jigéen ajuma waru ko kon julli ji ayit dañ ko sopp ci moom rek waaye buy dem nag na moytu bépp waajtaay ci lépp lu koy tax a taaru mbaa xeet gu neex yi lépp li tax mooy mën a jur fitna na ko moytu sopp na itam laal ci gët ak sol ci lu yees ci kooku man bu dee wàllu gàtt bu ne uduxiya jëmmi gàtt bi lañ ci jublu muy gàtt bi ngay rendi sunna la su war sunnatun mu akkada buñ ko waxee mooy sunna soo xam ne dëgër na ba xaw a jege waajib maanaam ba jege doon farata waaye àggul nag ci farata waaye kim doon nag farata ki mu doon sunna su dëgër ci moom mooy ki ko man ki ko mënul wàcc na ko la ca gën a néew nag bu de ci gàtt xar lañ ci gën a taamu waa la ca gën a e, suufe mooy xar moo xam ne am na at ba tàbbi ci atum ñaareelam kon ñu bàyyilu xel ne am na xeeti ras yoo xam ne dañu gaawu màgg léegi nga gis xar moo xam ne day day day day mage lool ci jëmm te fekk weesoogul juróom juróom benn weer mel ni xeeti laa dum mag yooyu xam nga dañuy gaaw mag nga xam ne juróom benn weer rek daanaka toll toll toll ni ay moroom waaye faaw dañ ci tam am at mu mat sëkk ba tabi ci atum ñaareelam benn gàttit doy na génn góor ci kër ak waa këram maanaam kii borom kër su fee rendee am xar yéene waale ak njabootam ñëpp dugg nañ ci biir euh, bu ko defee nag des na cee moytu lépp luy sikk euh, ni ko noonu maanaam gàtt boo xam ne dafa pat mooy benn bët laam benn doyul ci tabaski gàtt bu wéradi ba koo gis xam ne daa wéradi matul tabaski soo fekkente ne day wéri digu woyof na nga xam teewu koo ànd ak jur gay mën a doxi soxlaam ba maanaam teewu ko baax gàtt bu làggi bay sox-sox bi metti doyul ci tabaski ni ko noonu gàtt bu boo xam dafa yooy lool matul tabaski bépp ayib ay yëpp lu mel gàtt boo xam dafa dof ci misaal ci liñ ñu xam-xam nañ loolu matul tabaski gàtt bu lu mooy boo xam ne mënut a meem lu doy ci tabaski gàtt bu ñu xar nob ba lu ëpp sulus ba nob bi soo xaaj ñetti xaaj su fekkee ne liñ ci xar ëpp na ëpp na benn xaaj ba doy tabaski su fekkee da caayam yam képp nag mbaa mu yées ko baax na ni kon suñ ko daggee dagg nob bi itam lu ëpp sulus ba lu ëpp benn xaaj bi ñetti xaaj yi ba tey doy tabaski loolu dañ ko ma dafa ma de bàyyi xel ni ko noon bi su daggee la ca dagg ëpp sulus bu ma bi ba tey du doy ci tabaski ni ko noon su fekkee béjj bi dafa damu béjjén te wéeragut muy nàcc du doy waaye su wéeree nag eh, baax na nit ku ne nag mooy rendil boppam am tabaskeem jigéen mën naa rendil boppam so ma nee rendi su fekkee mën naa rafetal aw rendin mën naa rendil boppam ki ko mën it mën na mën naa rendilu eh, waaye nag gannaaw rendi imaam la deesi rendi moo tax ñu bëgg imaam yóbbaale ab gàttam ca jullikaay ba su jullee ba xutba ba génn rendi ci kanamu ñëpp ba ñëpp xam ne rendi ko dem mën a rendi ndax ku njëkk rendi sa imaam am nga ndawal waaye amoo tabaski loolu doon lu mat a bàyyi xel kon dañuy bëgg ko nit ki su ñu sëlmalee mu bañ a yàkkamti gaaw a dem ndax dafa am ñu ko def ñoo xam ne ñu sëlmalee ñu daal gaawantu dal dem suñu àggee man nañoo ren di ta fekk imaam ren déegul la gën mooy toog ba imaam xutba ba noppi ba kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ bi jàll ba noppi foo mën a julle kay jàlle kàddu jàlle kàddu ba noppi ba nga xam ne noppi ba imaam ren di ci sa kanam nga door dem sa kër soo àggee mën ren di loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax julli gi sunna mu akkada la julli googu ñuy julli ñaari iid yi sunnatun mu akkada la mooy sunna la su dëgër soo xam imaam e, da ciy génn ànd ak mbooloo mi julli gi di jiitu xutba bi di safaanu ajjuma ajjuma dañuy njëkk a xutba door a julli iid dañuy julli door xutba julli googu itam nekk julli gu am solo boo xam ne ku fekk ku julli garab it mën nga ko julli yow dong wax ne julli mbooloo ma dalaa raw mën nga ko julli yow dong waaye yor yor lay doon su sa wàll jot weesu na mooy digg ba ci su jot julli ga weesu na rakab bi ñu ko dem juróom-ñaari kàbbar rakab ñaari bi juróomi kàbbar waaye kabar yooyu nag bu njëkk ba kepp ci la ñu loxo yi ca yëpp da ngay wax allahu akbar ci soo làmmiñ da nga naan ko mu yoor waaye doo ko yëkkati lu dul ci bu njëkk bi kaabar yooyu kaabar bu bu ci nekk dafa ber di sunnatun mu akkada moo tax buñ ca bàyyee dañ koy sujjootal yow mi ñëw na fekk imaam rawe lay kabar man ngaa def kabar ya doora wi ànd moom imaam kàbbar na juróom-ñaari kàbbar yëpp ci rakkaa bu njëkk ba tàmbali jàng nga ñëw man ngaa ak moom wuuteeg ñay gis ne day doon fay ci biir jullig imam waaye loolu woyof gaa tax ñu maye ko su fekkee da ngaa fekk imaam kàbbar yu njëkk yi ba ba dese yan da ngay ànd moom yee mujj maanaam jot naa kàbbar ñetti kàbbar ànd ak moom ñeenti kàbbar yam dese bu noppee nag nga teg ca yow ñetti kàbbar yam la rawee buy ànd moom soo ca bàyyi kàbbar nag yow sujjóot du la war ndax imaam da lay waaye imaam na su ca bàyyeeb kàbbar moom da koy sujjóotal ba xas ba xas rukon su fekkee dafa dafa ñëw jàng fàtte ko laataa muy rukoo xelam dem ci day kàbbar kàbbar ba mu war dara ci ma dooru rukoo soo xasee rukoo nag da koy bàyyi sujjóotal ko xabla salaam donte benn kàbbar képp la fekkee imaam dafa dolli nag ca kàbbar yi beneen kàbbar yow doo ko ca topp donte ngërëm moo ko may rakkaa bi njëkk juróom-ñaar mu def juróom-ñett juróom-ñett juróom doo deesu ko ca topp rakkaa fekk juróomi kàbbar fekk da caa juróom-benneel deesu ko ca topp loolu doon lu mat a bàyyi xel xutba yi day xutba yi ajuma waaye sopp mu tàmbale ko ci kàbbar balaa tàmbali mu wax allahu akbar amutub lim lim bu ko soob soo tàmbali xutba soo xutba bu njëkk bi àggee mu toog toog ba muy toog day toll di toogaayu diggante ñaari sujjoot ci julli su jógaatee dellu defaat ay kàbbar yeneen njëkkee ko lu ko soob door caateg kàbbar bu mujj ba door caateg xutba bu mujj ba la bëgg wax waa bëgg nañ nag la muy xutba it doon lu tollook jamono la nit ña waaye gàtt moom soxlaatul mu cawaat ndax nit ñi xas nañ jënd ba yow ba noppi su fekkee nit ki jëndam xaram ba ba yow mi ñëw di julli si nga ngay wax sikki sikki gàtt fekk la ngay wax lépp ma ngi ca gàttam kon mooy da nga ne sa xar mi baaxul rek kon xëy na waxtaan yi nga xam ne mooy jiitu nag eh, ci rajo yeeg ci yenn bari ñu ci waxtaane xutba ñu waxtaane lu aju xarma loolu foofu la ko nit ki war a dégloo ba bu jógee di wuti ma xam la muy wut sàmmonte caag la islam sant waaye imaam nag na xool li toll ak jam li nit ñi soxla eh, toll seen dund mu waxtaan ca ak ñoom waari ca fàttale ca tegtale ca eh, julli googu nag desul naa fi la gannaawam dañ ko sib suñ jullee it ba noppi nañ dem waaye sib nañ di fa naafi waat bu dee ci ab àll waaye su dee ci jàkk nag moom sibuñu ko Euh, saabu bu nit ki dikkee te fekk mi waxtu naafila waxtu dagana naafila euh, mën na caa naafila kabar it sop nañ ki xëy ci bis bi mu di ko def maanaam saabu bu mu tàmbalee kabar allahu akbar allahu akbar di ko def ba ñëw ci jullikaay bi di ko def ba kër imam di ñëw gannaaw julli gee sopp nañ gannaaw julli farata gu nekk ñu kabar ñett yoon allahu akbar allahu akbar su ko neexee boole ko taxmid ak ak tahlil ah, su ko defee nag bu demee ba ci bisu ñeenteel ba buñ cee jullee suba ba noppi nag ba wax ko ba def kabar yi foofu la foofu la yem yàlla na yàlla boole nangul defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci def nu dëgg-dëgg taalibi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangul suñu taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa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 الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت wujubi daatihi wa waxdaaniyatihi al akwaan alwaxidu al axadi alwaxidi al axadi alladi laysa lahu fi mulkihi haan الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأسرف بني عدنان أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في نوم الغفلة رقود وتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه fa innaha afdalu ayaami dunya bi asriha mashxuunatun bilxayraati walfadaa'il fa amruha bi taatillah fa inna dalika min acdami alwasaa'il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 ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله كما ينبغي بجلاله والشكر له على ما أولانا من سابق إفضاله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أحب ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة ba'da siyaami ramadaana kulla yawmin minhaa bi siyaami sana wa kullu qiyaami laylatin wa qiyaamu kulli laylatin minhaa bi qiyaami laylatil qadr wa an ibni abbaasin radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala ما من أيام أفضل عند الله العمل فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف وعنه صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة inni ahtasibu ala allahi an yukaffira alsanata allati qablahu walsanata allati bacdahu saabiquu cibaad allah ila hadihi alxayrat wa aksiruu min adducaai yowma arafata fa inna adducaa fihi maziya أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من بعدي من, من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين ñu ngi sant yàlla mi buur bi fayaakoon santu lam xol ak làmmiñ di sàkk ci moom ndimbal di sàkk ci moom njëggal ci bàkkaar boo xam ne def nanu ko moo xam bu ñu tay la walla buñ juum la walla buñ fàtte la ñoo ngi seere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma di ab yonentam te mooy ngën di teddi bani àddanaam mooy ngën di teddi bi ndéef yépp am na ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu sàkkoo leeral tuuti ci li nga xam ne wax nañ ko ci xutba bi ndax sëriñ bi dafa sàkku ñu di ko leeral ndax dafa yéene ñëpp njariñ yéene yëpp ndimbal kon mu ne guddeeg bëccëg yaari waruwaay la yoo xam ne yi ñoo nu yóbbu ëllëg te kanam suñ boroom kii woote nag jëm ëllëg mi ngi woote doonte dañuy nelaw mbaa ñu sàggan mi ngi woote nan ko waajal nañu waajal weer wi nga xam ne ci lañu nekk ci yaatal ak teral te taxaw ca mboolem li nga xam ne moonu war ci màggal ak yaatal ñu sellal suñuy jëf ngir jëmm yàlla weer wi nag am na fukki fan yoo xam ne suñ boroom da ko cee ràññale mu bokk ci fan yi nga xam ne moo ko gënal ci àdduna mboole seen ci bisi àdduna yi dafa fees dell ak i nganeel ak i yiw nañ ko dundal ci topp yàlla ndax moo ngi may nganeel yooyu ñu jot jëlee nañ ci ko jëli ci yonent bi mu wax ne isaara bu ngeen gisee weeru silhijja ku ci yorum tabaski te bëgg ko rend ci te bis ba bu weer wi teroo na nga téye sa kawar ak say we boo demee ba rendi ba noppi nag loo yittewoo ci watu walla lawiku nga def ko kon nan bokk xàmmin li ñu yàlla xàmmimal nañ foog loon teg yàlla mi nga xam ne dara du ko fat fat dara du fàddu fi kanamam lu ni fépp aw sànqal aw sànq lañ sax bu toxoo fii jëm fee yàlla xam na ko yàlla ñu yàlla jariñ ci alquranul karim ci dégg ko ak jëfe ko mais ginnaaw bu ñu seet la yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa na yonent bi moo di yonentam noo ngi dellu di fàttali jaami yàlla yi lañu jële ci ku jële ci yonent bi mu wax na amul yenn bis yu gën a tedd fa yàlla ñu war ko ca jaamu yu ëpp doole fukki fan si ginnaaw weeru koor ndax woor benn bis ci bis yi nga xam ne mooy fukki fan yi dafa tollook ci tuyaaba woor wooru at taxaw ci ak guddi julli ci jaam ay ràkk ngir jaamoo ko yàlla dara jaamaa ngi mel ni nga def ko ci guddi gu mel ni laylatul qadar jële nañ ci ku jëli ci yonent bi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee amul yenn bis yu gënal yàlla mu jëfal ko ca ci bis yi di fukki fan yi kon nañ ci baril sunuy tudd yàlla ak sunuy sikkar nee woor ci benn bis dafay tolloog woor woor atum daaw ak atum ren ak ñi jëm jëf ca jëf ju baax suñ boroom nee na dana la ko fëlal juróom ñaar fukki yoon tam jublu bari ga te jublu limba ndax yàlla ëpp na loolu jëleen nañ ci yonent bi wax ne woor bisu arafa day far bàkkaar yi ren ak daaw ak jëm waxoon nañ ko kon nañ bokk farlu te jëkkante yiw yii nekk ci fukki fan yi te bari ñaan ci yow mu arafata ndax mi ngi ñëw ñaanti am na ngëneel yu mag imaam Malik wax na jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu jële ko mu jële ko ci ku jële ci moom yonent bi nee na afdalu duaai duaau yowmi arafata wa afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuuna min qabli laa ilaha illa allah la sharika lahu lahul samay wax ak la wax waxoon la ca gën bisu Arafa bu dikkee nga di ca wax laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir hamdan liman akmala yawma arafa gis naa sëñ ko ci kon nag laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu mulku alhamdu ala kulli na bu bis waa rafet dikkee ñu di ko bari la wax ngeen ngir am yool ak ngeneel yum làmboo yaxfirullahu lana wa lakum wa li jamiil muslimin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 جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة مصفوفة وزرابي مبسوطة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنها استعانه سعيد assalaamu aleykum assalaamu aleykum <coughs>